Thierno Bocoum ak les militants ah. ah, gis ngeen ko ah, gis ngeen li nga xamante ni moom mooy dafa mel ni que dafa mel ni ka dafa mel ni que yaa amalu amalu bees lu génn président loo wax Thierno loo wax Thierno loo wax. le maire monsieur le maire. ah jeexagul leen tamit. lan ngeen bëgg ma wax. ah. les Sénégalais. jot a dégg ci gàttal mooy Bougane dañ ko jaay doole. moom la ñëpp a wax moom la ñëpp a seede. gendarmerie bi nag dañ leen di parce que ay kilifa di dem ba di bëgg a fenel bëgg leen sosal loolu la ñaawlu waaw parce que Bougane lépp luñ ko def jaay doole kese la wante comme dëkk bi dafa mimi procès bi tamit xaw mimi ni dëkk bi daanaka ay fen kese la woon ay ay ay manipulation moo fi dugal Bougane hmm. mais nag yàlla ci mbaaxam lépp ngi leer kon nag ñu ko def xam nañ seen bopp mais parce que procès bi yëpp dafa mimi parce que procès bi dafa mimi parce que lu ñu topp Bougane amul bopp amul genn lépp ay fenn la ak ay manipulation la kese Bougane nag may birilaat wax ji c'est un c'est un otage nañ ko bàyyi mu ñëw baat campagne loolu mooy wax ji ah, mimi nag laay waxal bëgg bañ il faut mu sëgg bëre il faut mu sëg a bëre ak ay maasam te ay maasam a ngi nii waaw loolu may mboolo bi mais libere Bougane lu ci des mooy le 17 novembre mais ngeen fajal seen naqar ci urne yi na ngeen ko bàcc bu baax a baax ci kees réaction waaw maintenant gis ngeen ko ki nga xam ne mooy Anta Babacar Ngom dafa bëgg a joxe réaction mais actuellement bu mel ne que euh, garde corps yi ñooy xaw a mais. va a de tout faire pour avoir la réaction de Anta Babacar Ngom donc donc mu ngi noonu on va essayer de voir waaw ndax dañuy am li nga xam ne moom la réaction de Anta Babacar Ngom euh, fi nga xamante ne moom mooy ci Tambacounda gis ngeen ko y a beaucoup de monde actuellement fii ci Tambacounda mu mel ne que Anta mi ngi dugg oh mi ngi a waaw mi ngi a mi ngi dem mi ngi dem Anta Babacar Ngom mi ngi dem est-ce que dañu am réaction Anta Babacar Ngom donc on va essayer de voir on va essayer de voir on va essayer de voir. Anta moo dugg ci oto bi ah, Anta moo dugg ci oto bi gis ngeen ko donc finalement finalement elle n'a pas parlé finalement elle n'a pas parlé la Anta la li xew tey fii ci tribunal bi am nañu yaakaar ne que dëgg mooy mujj ndaxte li ñu fi dégg du lu xel mën a nangu ñun ñi fi nekkoon ci bis boobu xam nañu li xew xam nañu lu mu def xam nañu lu mu deful te nag dañuy profiter ci occasion pour wax ne que rafetlu nañu taxawaayu gendarmerie nationale ndaxte témoignage yi ñu fa dégg témoignage yu dëggu la donc il faut arrêter d'essayer d'instrumentaliser la justice ou d'instrumentaliser nos forces de défense et de sécurité loolu mooy li war a mën a andi jàmm ci biir Sénégal bu ñu defee naneen dañuy gis naka sudul naneen loolu kenn bëgg ko xam nga ne que ñun avec la simple volonté de libérer un frère, de libérer un allié, donc libérer Bougane pour qu'il aille battre campagne pour qu'au soir du novembre, qu'on puisse avoir une... su bàyyi ngay convoi bi dem convoi bi dafay toog ñun ñu dox dem Bakel ñu leen du ngeen dem Bakel kat mais Bougane ne leen ñoom ñëpp wax ko de xalaat kon da ngeen may jàpp vous m'arrêtez je marche ou vous m'arrêtez parce que man damay dox dem ñu ne ko jàpp comme yaa di nañ la jàpp jàpp nañ la sama sol ab yaari dañ la jàpp jàpp nañ la ci lan ci denge da ngay dox dem Bakel comme convoi bi déranger nit ñi da ngay dox ñu ne noonu léegi jàpp ne prison nga jëm kenn amul droit dox dugg ci dëkk boo xam ni président moo fa nekk président bu demee seeti sëñ Muntaxa Touba kon kenn warul jógee Mbàkke dugg Touba kenn warul jógee Daaru Muxti dox dem Touba ke waru jóge daaru salaam dox dugg Touba ndax tuuba ca daaru nam kalif bi ba ngi recevoir président de la république waaw waxi dof yooyu kañ la am ci réew mu bëgg a dof waaw Sénégal kañ la dof président bu nekke ci dëkk ñett di dox ñu ne non dox dugg ci dëkk boobu président mu ngi bi dëkk ba du ngeen dox dugg ci dëkk boobu senegal yi yéen jommiwu leen tey question yi bu ñu koy posé gars yi ñoom ñu doon posé question yi soit disant ay gendarme. capitaine bi ak capitaine ordre la jot ngir mu arrêté. mu arrêté bugaan convoi bi. mu arrêté convoi waaw. mais convoi la war a arrêté mais pas dox ñu ñi dox. convoi bi moom nañ ko. amul refus d'obtempérer arrêté nañ ko mooy troisième infraction bi. convoi bi forcé wul baare ay barrage dafa droité ni leen comme sunu convoi jekk ba dee. war a dimbale ji néew doole yi ñi ñàkk lépp ñi ndox bi dugg seen kër ba nangu seen kër yi comme ay ngeen ñu convoi bi dem xëy na convoi bi ni mu jekkee oto yi ni ñu rafetee ni ñu àndee jaagar jaagar yi dugg ci dëkk bi xëy na fekk fay oto yu ànd ak président Maguette Koubidas xëy na loolu moo leen metti ñu ne non non non non surtout que ñoom indiwuñ benn ndimbal fa ñuy jëm ñu ne déedéet du ngeen dugg ñu ne waa kon convoi bi na toog ñun ñu dox ci dox boobu nag ñu ne leen amu leen droit loolu infraction la ah prison bu gandi li ko waral mooy damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox soo dugg Bakel dang dul Thierno Bocoum ak Anta Babacar Ngom mais moom lañ ci seppi parce que moom dafa sonal gaañi nag moom mooy déranger pourtant Mouride Thierno Bocoum dana ma day dox Anta Babacar yi day dox ñuy avancé ñu leen niip bu gaan téye loxo di ko da may jàpp parce que man damay dox dem de ñeeni dañuy dox de waaye ñe mais num buggaan lañ seppi ti bugaan gaare na convoi bi bàyyi ko ci mbedd mi nara a ju ñu ne ko dox boobu nag la ñuy bañ parce que président bu nekkee Diourbel wala mu nekk Thiès wala mu nekk mbuur kenn du dox dugg Mbour kenn du dox dugg Thiès kenn du dox dugg Touba wala Tivaouane boo président nekkee ci sëñ Babacar sëñ Mbaye Sy Mansour mais yéen ku jege Saint-Louis ñoom da ngay taxaw amoo droit dox dugg dugg dugg dugg Tivaouane ku jógee ku jógee ku jege maître te am nga yaakaar ne euh, procès bi tey fi lay yem dinañ ko baay mu dem ñibbi kër ah, bu fekkee ni kay amuñ intention téye ko prison mhm. ndax ah li fi nekk nii de wala ne bugaandu bandi jaayul drogue rayul nit mbëkkul benn gendarme saagawul benn gendarme bañ ne koo toogal dafa dafa oto yi wàcc ba wàcc liñ ko téye daal mooy damay dox dem Bakel ku la wax leneen deex lu ko neex damay dox bu ngeen ma arrêté ma bàyyi fi convoi bi dox ñu ne ko doo dox kon yaa ngi prison loolu tey buñ ko bàyyiwul nga xam ne am na leneen loolu ci làqu buñ bàyyiwul tey bugaan Sénégal yëpp maa ngi leen xam leen ni kon dafa am lu ci làqu xëy na li ko tere def campagne ba léegi li tax ñu téye ko def tey ko ñu ko fenn kon mooy continuer kon xanaa loolu rus nañ ko def tribunal bi ma gis ñu ñu déglu ah gëwuma ni dina def ëllëg lu ñu di xeebee ah, ñëpp a gis ni mu demee. à votre avis maître à votre avis lan moo nekkoon état d'esprit Bougane gisoo ko muy jongle gisoo ko gisoo gisoo ko gisoo ko mu mel ni champion d'Afrique ah gisoo ko mu mu muy toj affaire yi leer du dugal ay but du dugal ba gars yi jaaxle procureur jaaxle ñëpp jaaxle gars yi dañu wax bu ñu xool ni waaye kii lu ñu ko indee fii sa waay tooñ nañ ko de kii lu ñu def fii place bandi yi ñu naan ëne ndoog moom muy tëdd ci lali bandi yeeg néegu bandi yi kii bandi la kii di dimbale ñu sonn indi ay ay ndimbal lii la mérité damay dimbale waa Bakel yi sonn lii la mérite yéen waa Sénégal ku waxul dëgg wax ca des yàlla nañu yàlla musal ci dul dëgg yàlla nañu yàlla dimbale ba tribunal bi yàlla leeral xelam teg ko ci siraatal mustaqima bu attee dëgg ndax loo atte fii dëgg yow attewaat ëllëg cey yàlla am na de ëllëg dañ ko sóoraale gars yi tooñ baaxul tooñ baaxul résumé en français monsieur maître Diouf ce